ñuy classe intermédiaire mooy classe yi nga xam ne defuñu examen xam nga ñoom euh, ñu ngi woon ci ci li ñuy programme apprendre la maison ndax nous ngi woon télé yi vous ci site yi visiter mais également ak radio communautaire ak yooyu comme ni ñu ko waxee sànq waaye suñu ubbee euh, comme ñoom euh, ñëwaatuñ ci école bi dañuy def rattrapage maanaam fañ njemoon la ñuy continuer ba sorwaat ci programme bi euh, loolu mois de novembre euh, ak une partie décembre mom la xalé yi def mais fofu li ma fi leeral moy bu classe intermédiaire c'est c'est moins grave ndax euh té lolu vraiment jàngalekat bi moy wax classe intermédiaire mois de mai au plus tard début juin la ñuy école dotu ñu té xam nga euh, mars lañu tëj té avant avant ñu tëj une semaine à une semaine des fêtes de Pâques bu ñu ñëwaatoon tamit bu Covid amul woon donc 15 jours lañ ciy un mois 15 jours lañ après une def composition mu affaire affaire bu jeex donc ça veut dire que fofu c'est moins grave donc li li ñu né fofu moy mooy défé ñu ak fukki fan rek war sax lu ko néew dañu à à niveau té maîtres yi xam comment rattraper des des des des coups perdus xam nañ ko dañu nekk à niveau donc pour vraiment c'est c'est moins grave que les classes d'examen.